Uras Info xibaar yi gaaw te wóor Uras Info l'info à temps réel Uras Info jàngat yu te dëggu notre force le traitement de l'info min alhamdulilah rabbil alamin ah, li ma mun a wax ci moom moo di ñun fekkee nañ jamono yi baay liñ gis ci moom mooy mooy moom moo ñuy fàtt moo ñu doon fàttali baay ndax lépp lu bàyyi tëraloon mu ngi ci woon ci loolu lañu tàggat ci loolu lañu yare ci loolu lañ àndoo ba nim xëyee ni wuy ji boroomam moo tax ñu ngi sent yàlla bu baax a baax a baax baax yàlla mi ñu boole ak moom waaw daal loolu lañ am lu ñuy wax mënut a gudd nag loolu rek lañ mën a am ci loolu seede bi daal mooy ku baax la julit la akan ku baax la te royteef la mm-hmm. waaw bu mag a mag a mag mëri na jafe na nit maanaam ñu nangul nit mm-hmm. waaye moom ñëpp nangul nañ ñëpp a ko nanguloon ñëpp a ko nanguloon la lu ko waral ay jikkoom ay jëfam ay ni mu doon taxawe ni doon léppam daal ndax moom lépp moom booy wax sax boo waxee ne waxal baay waxal baay waaw moom bàyyi rek moom bàyyi rek bàyyi rek bàyyi rek hmm. waaw ñun daal ba tax ñàkkuñu hmm. ndax xam nañ ne eh, lim fi suukat hmm. mu ngi fi mu ngi fi moo tax ñàkkuñu dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah sànq dama laaj maam alaaji ma ne ko lu tax sëñ bi ndaw ñi ñeme woon ko lu tax lewetam lewetam ak it moom bañ nañ ko ba papa lañ koy ubbee ñëpp papa ñëpp papa lañ koy wooyee ndax ku ñëw rek moom daanaka yow ci ci njabootam nga képp ku ñëw rek yow ci njabootam nga bokk xam nga kooku ah macha allah looloo tax njaw yi ndaw yi ah moom bind ñi di xëccoo mag ñi dafa bàyyi foofu mag ñi moom dafa toog rek jamono ñëw ndaw yëpp yàlla ndaw si ñëw wut si ko mm-hmm. loolu nag mbiru yàlla la waaw loolu moom mbiru yàlla la mm-hmm. waaw moo taxit tey mu macha allah alhamdulilah képp kuy ñëw ci ziaram yi. Mm-hmm. ah xam nga ne na lu yàlla defal. waaw ba ci bu ci mujj mooy euh, euh, Missirah Wadène gi bi ñuy inauguré jumaa ji mm-hmm. macha allah alhamdulilah sant yàlla bu baax jërëjëf. alhamdulilah Uras Info, Ribari Gao. Uras Info, l'info à temps réel. Uras Info. Django du te debout, notre force, le traitement de l'info.